c'est bon waaw bismillah mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barki Sëriñ ñu jiitelee si nuyoo sëñ Muntaxa Mbàkke di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di eh, ñaanal Serigne Bass Anta Niang mu yàgg fi lool te wér ñu ngi ñaanal ci suñu yaakaar àdduna ak alaxira Serigne Modou Kara ko sasulu mu yàgg fi lool te wér tey nag bu ñu gisee ñu teew ci jataay bi yaakaar naa ñu bëri di ko ràññee eh, muy place du souvenir ànd ceeg suñu kilifa Serigne Koso Badiane ak sëñ Moustapha Seck bu Touba ñëpp xam nañ dañuy euh, waajalaat bés bu am solo ci euh, kër sëñ ko sasulo bés bu am solo ci kër sëñ Modou Kaw euh, sëñ Modou Awa Balla ci kër borom Daaru Muxti te buñ ko yaatalee ba yaatal ko muy ci njabootu borom Tuubaa gi yëpp muy journée culturelle boo xam ne dañ koy jaglee jàmbaar jooju noonu humaniste boobu noonu l'homme de tous les temps ki nga xam ne tey ay valeur am ak ay principe ak taalibeem ak gitteem ju kawe moo tax ba ñëpp ràññee ko ci yoonu murit moo tax ba ñëpp ràññee ko ci Sénégal ba ci ñi nga xam ne sax ce sont des non musulmans muy chrétiens yeeg demee noonu kon kooku la ñuy waajal bés muy Serigne Kosso Astou Lo mu doon jàmbaari diine islam mu doon koo xam ne xel ñëpp ràññee nañ ko ci yitteem ju kawe ak mbaaxam ak yaatoom kon euh, bala ñoo développé dara dañuy euh, jox sëñ euh, koso mu daal di tijji suñ paree ñu waxtaan nag wax leen ci procédure nan lañ ci nar a nar a demee wax leen ci tamit événement bi nu muy nu ko bëgg a déroulé. ak euh, fii ñu ko bëgg a amalee muy place du souvenir incha allah rabbi waaw kon suñ ko sa kàddu gaa ngi noonu bisimilah. asubillahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala almursalina walhamdulilahi rabil ñoo ngi sant yàlla bu baax suñu borom tabaaraka wa taala mi nu baaxee ba nga xamante ni lii ñuy waaj a def defaat nañ ko ci at yee passé gàllankoor ñëwoon muy wàllu corona taxaw ñu arrêté ko ci ndigalu sëriñ bi gannaaw loolu ñu ngi siyaar bu baax sëriñ Muntaxa Mbakke xaadim rasul si Ahmadou Bamba yàlla may ko fanu gudd te ànd ak wér ba mu eggale liggéeyam ak mbokki taalibe yëpp di ci teg sëriñ Mouhamadul Bachir xalifa maam Cerno Ibrahima daamal borom subhaanahu wa taala may gudd ak wér ak njabootu maam Cerno gépp di duggaat ci biir siyaare bi rek di siyaare Cheikh Mamadou Moustapha al Karim xalifa Cheikh Mamadou Awa Balla di sunu sëriñu sëriñ ñoo ngi koy siyaar bu baax it di ko wax di ñaan yàlla mu gudd fan te wér ànd ak jàmm ak njabootu sëñ Mouhamadou Awa Balla gépp di siyaar sunu wasila sunu sëriñ sëriñ Mouhamadul Kara Kosa Asulo xalifa sëriñ Kosa Asulo Baye Fallou sëriñ Kosa Asulo ñoo ngi koy siyaar bu baax di yeesal siyaar bi di ci boole waaye taale bi yëpp ci yeesal gi di ko siyaar bu baax di siyaar njabootu sëriñ Kosa Mbacke Asulo gépp di ñaan sunu borom tabaaraka wa li ñu ubbi yàlla nañ ko ubbi ci bismillaahi rahmaani rahim eggal ko ci alhamdulilahi rabil alamina te liñ ci sumb ci lu baax lépp muy fàttali ko jàmbaar joo xamante ni ku mat a fàttali ko muy alaaji kosa mbàkke asuloo alaaji kosa mbàkke asuloo nag buñ ko tuddee dana xam ne kooku doomu seex moo amadu awa balla la ak soxna asuloo kooku mooy borom sarsaara kooku la baay am daan woo sëñ mu daaw baa naan ko ko sa mu ne ko mbàkke mu ne ko bàkkul yaay sama mbër borom daaru muxti nag comme daan jàpp di teg ci boppam nan ko bàkkul yaay sama mbër kon mën nga mbër mbër moom nag daa liggéey ba am ngërëmul yàlla ak yonante bi ak Serigne am ngërëmul mboolem ko fa toogalee Serigne Touba rek am na ngërëmam waaw li ñuy gàtt gàtt xam-xam ak ko fekkee am na loo xam ne mën nañ ci seede kon kooku lañuy ñuy ko fii ci place de souvenir incha allahu rabbi ci ci koor gi. sorne boo xam ne dañ ko koy defal te sorne boobu nag ki ko defal man na ko mën naa defal ndax liggéey na ci dëkk bii ak ci réew mii képp kon fàttaliku ko rek war na caa bokk kon nag ci ndigalu sëñ Modou Kara Kosso defee. ñu sant yàlla baax nag fekk ñu ko fekkewaat di gërëm étudiants yi xëy ñoo nekkan université commencé ko foofu ba am ci ndigal sëriñ bi jaatal ko ñu ànd ak daayira yi ak taalibe yi fas yéene ko fàttaliku ci kàttanu suñu borom tabaaraka taala loolu nag bu ñu koy fàttaliku maanaam wàccaay la ci Ila Sarsara ci ndogu yooyu ko xamante ni moom la ko waajurum wa tànn lan Cheikh Mouhamadou Awa Balla di nekk 27e suur si weeru olof ñaar fën ak juróom-ñaar weeru olof bu ko defee bis boobu moom la ne waajalee Ndakaaru fas yéene dem Sarsara kon nag maa ngi jégalu ñëpp da baalu àq ñëpp di ñaan suñu borom tabaraka taala képp ko yaakaar yàlla yaakaar yonte bi yaakaar sëñ Tuubaa te yaakaar maam Cerno Birahim sëñ Moodu Awa Balla di sa bunt ci kër maam Cerno sëriñ Koso di sa bunt ci kër sëñ Moodu Awa Balla ñoo ngi lay jox appel ci bis boobu ak xarit ak kóllëre bàyyiwuñu kenn ñi ngi santaat bu baax ci kàddu yam solo yi xanaa di santaat bu baax rek di doolee sant mi suñu yaakaar sëñ Moodu Kara comme ni nga ko waxee sànq ndax moom euh, ñëpp dañ koo xam ci ci ci ci ci ci ci ci yitte sëriñ Tuubaa ci liggéey boo xam ne xel maanaam Sëñ Tuubaa rek ko ñor ak yàlla suñ borom mi nga xam ne moo ko sàkk ndax képp koo xam xam na ne nekkul ci lenn loo xam ne maanaam euh, dañ koy dan dañ cee xeeba kilifa wala deet wala wala wala demee noonu kon kooku noonu ni nga ko waxee dañ koy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér te ndigal li ci moom lañ ko jëlee moo ñu ko wax te ñëpp dégg nañ tamit ñu koy santaat tamit ca màggalug daaru ga kon yitte ji mooy képp koo xam ne murit nga bokk ci kër gi surtout nag nga yor ci responsable ndax ren ji dañ cee préparé ni ko suñ ko sa waxee lii dafa doon loo xam ne avant première la pour màggalu Sarsara dafa doon loo xam ne dañ koy waajale ngir màggalu Sarsara te sëñ bi daf ñoo am lu ñu soññ lu am solo ci ci ci ci ci ci par rapport organisation kër gi ba ci sax nan lañu def sax ba fédéré daayira yi nga xam ne yëpp ñoo xam ne ñu ngi nekk ci biir kër gi kon loolu lii dañuy permettre mu doon benn avant première boo xam ne dañu dañuy permettre képp koo xam ne jëwriñ nga ci kër gi wala képp koo xam ne am nga responsabilité ci biir kër gi ñu daje fi ñun ñëpp ndax am na benn conférence boo xam ne spécialement ci loolu lañ koy ci loolu lañ koy ci loolu loolu lañ koy a jaale muy waxtaan nan la ñuy waajalee ndogu Sarsara waxtaan bi nan la ñuy def ba jokkoo ak taalibe yi loo xam ne day gën a kawe njort day gën a mat day gën a day day gën a day gën day gën a taw féexe kon loolu daal ñu ngi ci woo képp koo xam ne yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi bàyyeekoo ci kër sëñ Kosso Astou Lo di bàyyee bàyyeekoo kër sëñ Modou Awa Balla bàyyeekoo kër Maam Cerno rawatin nga doon ba taalibe borom Touba ba ci képp koo xam ne yaa ngi wax ashhadu an la ilaha illallah eh, ñu ci invité ñëpp képp koo xam ne rek yaa ngi koy yaa ngi wax la ci invité ngeen teew ci ci bés boobu ndax suñ ko sa liggéeyal na yoonu murit liggéeyal na Sëriñ Tuubaa loo xam ne buñ ko wootelee journée jàpp naa ne waxuma la sax place du souvenir sax waaye biir Dakar gi yëpp danoo war a riir ñëw ñëw ñëw ñëw ñëw wut si place du sou ñëw ñëw wut si biir place du souvenir ndax liggéeyal na ko jàmm ci biir ci biir ci biir ci biir ci biir ci biir dëkk bi moo tax ban demoon tudde ko sax l'humaniste l'homme l'homme ka nga xam ne maanaam maanaam nitu nitu nitu nitu jamono jëpp la mhm. l'homme de tous le temps mhm. moom mën nañ koo tudde noonu ndax ndax moom dafa dafa dafa dépassé woon dafa dépassé woon temps bi mu nekkoon ni Sëñ Tuubaa doxale woon bi mu nekkee jamonoom kon daal képp koo xam ne yaa ngi koy yaa ngi koy yaa yaa yaa ngi dégg suñu kaddu ñu ngi lay invité ci kii te ñu jàpp ci bu baax a baax date bi tin par rapport ak date bi dugg nañ ci biir administration bi wax ak ki nga xam ne moo moo moo mooy saytu loolu moo ko yor léegi ñu ne mu may ñu may ñu may ñu may ko feeg mardi ñu choisir ñu mu xoolal ñu date entre le 16 wala 23 samedi 16 samedi samedi ou samedi 23 kon d'ici mardi nañ leen publier date bi wax leen ne date bi temps la date bi del tel jour la ñu man ko ñun ñëpp waajal man cee teewandoo ñun ñëpp liggéey ci Serigne loo xam ne xel dina dina dina dina dina dina dina dina dina ndax jàpp naa ne euh, journée culturelle yi ñu fiy mag yi xam ne ñu koy organiser à l'intérieur de Dakar Serigne Kosso dimension ëpp na foofu noonu mhm. dimension ëpp na foofu noonu ndax dégg ngeen Serigne Karalam ci Magal Sarsara mhm. nekk nekk fi tudd ñun fi tudd tudd ñu ñu Serigne Kosso ci wax mhm. kon loolu noonu dafa doon loo xam ne il min am ñu bëri amuñu ko te nit ki nag boo amee loo xam ne dafa am dafa valeur valeur boobu da koy fonk xam ne lii nii suñu boro moo la ko jagleel moo la ko jagleel te nan lañ koy fonke mooy fexe lépp loo xam ne ñu ngi koy taxawal ci kër gi ñu assisté ko fexe jàpp kër gi yëkkatiwaat kër gi ñoŋalaat kër bi ba sëñ Modou Kara li nga xam ne mi ngi koy sàkku ci ñun mu ñu man mu man am ci ñun ndax kër gi am na am na façon taalibe bu nekk am na fi Euh, catégorie bu nekk am na fi kon ku ci nekk yow bu fekkee ne yëkkati nga sa pas-pas xam ne ci kër gi ci ngay sàkko ngërëmul Serigne Touba te ngërëmul Serigne mooy li nga xam ne moo lay jëriñ ci kaw suuf jëriñ la ëllëg fee ñu jëm kon loolu noonu te ci kër gi nga ko nga ko a sàkkoo kon war ngaa mën a dagg lépp loo xam ne maanaam yitte la man koo mën a mën mën a nekk ci yitte sëñ bi ndax loolu mooy ak taalibe taalibe mooy da ngaa tënku ci sëriñ bi da ngaa tënku ci sëriñ bi te tamit maanaam amatoo temps amatoo jot bi moo moom kon bu taw yittee sëriñ bi taxawee ñun ñëpp dañ cee war dañ cee war a taxaw ne tamit ñu wéyalewaat rek ndax dafa am yitte joo xam ne dañ koy taxaw dañ koy ci wàllu programme bi programme bi ndax programme bi ren bi dañ ko gën a élargir gën ko yaatal mu doon programme boo xam ne yaakaar naa képp ku ci teew rek danga nga mën a jàngatewaat sëriñ Koso jàngate ci wàcc borom ci borom daaru jàngewaat tamit ci ci ci ci ci yoon wi loo xam ne maanaam dina la mën a jëriñaat euh, ba fi boo fi jógee incha allahu rabbi kon donc dafa am tamit loo xam ne dafa am solo ci yoon wi muy nan la ñuy fexe ba njabootu borom Touba gi mu gën a mu gën a sude mu gën a nosu moo tax loolu bi ñu ko xalaatee dañ ne woon bés bii nii dafa am koo xam dañ koy pare ni loolu na xam naa naa baay bàyyi ko koso mu am lu mu kàddu mu ci yëkkate ndax dafa mel ni daa am lu ñuy ndigandiku rek lu tuuti rek lu lu tuuti rek lu ñu dégg ko pour loolu bu jotee rek ñu man koo siwal waaye ñu ngi ci démarche yooyu noonu nga xam ne maanaam dina permettre journée bi gën a kawe yitte ji gën a kawe yeneen yeneen yeneen kër yi gën fee teew mu doon loo xam ne maanaam dañ koy commencé mu fex si jëm jëm nag ay ati ati at ci ci ci ci jëm bu soobee yàlla incha allah kon suñ ko so kàddu gaa ngi noonu jërëjëf jërëjëf waaw sëñ Modou Kara Ndoye kon ni nga ko waxee noonu la demee ndax bis boo gis mbir mooy somb day am kilifa ñuy woote ndakaaru di ko wooteel Serigne Kosa a Assuloo dafa am kun ko war a parrainé ki nga xam moom lañ koy tudde nekk kilifa gu mag ci réew mi nekk kilifa gu mag ci yoonu Serigne Touba nekk kilifa gu mag ci kër borom Daaru Moxti tuddagun aw tur waaye li ñuy néegoodu ko fan yu néew incha allah rabbi fub taaliba nekk di nga xam ne kenn koy tudde mën naa tudde bis kenn koy tudde mën naa jagleel bis te incha allah rabbi duñ koy tënku noon rek waaye bu sobee yàlla suñu borom tabaaraka wa taala su dat bii génn bi nga xam ne ci lañ war a def bis bi dana ànd ak turu kin koy tuddee nga xam ne ak yaatal la joxe sa bopp la am ak taaliba la te ndigal loolu am incha allahu rabbi buñ ci eggee ñëpp dana xam kin koy tuddee ci bis bi ci fii ñu koy defee ndakaaru barke bi yàlla ak yonent bi ak Sëriñ Tuubaa kin koy tuddee it yàlla na ko yàlla may fanu gudd ak wér te may ko njaboot gi may ko taaliba yi ba nin ko nosee ñu eggale ko ci jàmm ak salaam ci kanam sëñ Modou Kara Kosso Astou Lo ca Sarsara wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu comme noonu ñu ko waxee rek di euh, euh, santaat bu baax njabootu sëñ Kosso gi ndax bu ngeen xoolee journée bi ñu fi organisé woon en 2019 ñoom ñëpp a teewoon presque ñëpp a teewoon ñëpp ñëpp ñëpp liggéey bu baax a baax a baax te loolu ñun taalibe yi la war ñoom dara waru leen lépp ñun la war waaye ñoom seen yitte ju baax ak seen bëgg sëñ Kosso ak seen yaakaar sëñ Kara gi ni yaakaar sëñ Kara moo taxoon yitte jooju ñu ñëw teew fi teewal fi sëñ Modou Kara daa daa di daa di daa di jàpp ci bés ba mu ba mu am réussite bi mu am tey jii nii kon loolu noonu dañuy jox sëñ Kosso tamit mu mu mu mu mu lancé leen benn benn invitation boo xam ne dina permettre tamit ñoom ñu jot seen invitation ba yeneen yeneen yeneen yeneen yeneen yeneen yeneen euh, waxtaan yi ñëw incha allahu rabbi ñu fexe nan leen nan leen leen ko gën a yaatale incha allahu rabbi sëñ Kosso bisimilah. waaw sëñ Mourou Kara Ndoye wax nga dëgg ndax képp kuy liggéeyal sëriñ Kosso rek njabootu sëriñ Kosso ngay liggéeyal te damay jàpp ne ki nekk ci bopp bi di suñu kilifa ñun ñëpp di Cheikh Mamadou Kara Kosso yàlla fi yàgg te wér ak njabootu sëriñ Kosso Mbacké ak solo yëpp di sant góor ñi di sant jigéen ñi ndax ragal naa at min ko mujj a defee délégation bi nga xamante ne ay doomu sëriñ Kosso lan di góor di jigéen di mag di ndaw def nañ taxawaay bu rafet ñëw ci place bi ànd kook taalibe yi ba lépp jeex ñu doog ko delluwaat Daaru Musti ak Touba kon nag soxna yi nga ñoo nekk Touba nekk Daaru Musti nekk Ndakaaru ak seeni kilifa yi nga xam ñoo leen ñoo leen jiitu ci yoon yi di mbekk mbekk yi nga xam ne doomi sëriñ Koso la ñu nekk Ndakaaru ak Daaru Manaan ak Tuubaa ak ñëpp ñëpp nañ xam ne bis bi seen bàyyeeku moom sëriñ Koso ñun ay jëwriñ lañ yoo xam ne ni ay ndongo yu xeebu yoo xam ne ni du ñuy seen waajur nga xam ne ñoom fi ñu taxaw fi ñu taxaw nii ñoom ñoo leen fi taxawal fu nekk ñoom lañ fi nekkal kon ñu ngi leen laa sa appel ba ci nekk bitim réew bàyyiwuñu kenn waaw su ma waxee ñu nekk Sénégal rek am na ñu nekk bitim réew nekk ay kilifa nekk doomi sëriñ Koso Mbàkke Astu Lo ñu ngi leen di fàttali bis bi ñoom tamit bu baax te xam ne daañu si jàpp jàpp rafet boo xamante ni maanaam mat nañ ci seede ndax moom Mamadou Bachir daaw bi ñu demee xam ne defuñu ko dafa am émission bu ñu ko jagle woon TFM mënu ma sëñ koso de yow laa bëgg nga demal ma fa te xool ci mbokki taalibe yi koo xam ne mën naa waxtañ sëriñ koso lu wér nga yóbbu ko fa ma xalaa ne mudu boobu taalibe sëriñ koso la te sëriñ koso defar na ko te am na lu mu xam ci kër gi am na loo xam ci sëriñ koso am na loo xam ci sëriñ Tuubaa ak ma jël ko ci ndigalu sëriñ Kara Koso asuloo ñu dem TFM mu jàllale waxtaan ban jeex takk ci émission boo xamante ni duñ ko jagleel sëriñ Basiru bu sëñ ko sa asuloo may ko ko émission ci màggalu sëñ ko sa daaw gi donte wóotewuñu ko may nañ ko ko kon loolu rafet nañ di ko wax ndax nit ko nekk boo bu ki jàppee fii ki jàpp fii rek day mujj rek lépp day ànd egg fan jëm te kenn du am jëm jafe-jafe kon nan xam ne bis bi yéen a ko moom njabootu sëñ ko sa yéen a ko moom ñun fu nekk yéen leen fa nekkal ñu ngi leen di lancé appel xam ne ne li fi nekk yéen ko moom yéen moom dong yéen moom taalibe yi waaw amuñu ci kenn xaj ak seen képp koo xam ne naa soxla nga koso wala karando yi loo ko soxla wax ko ko te xam ne yéen leen fi nekkal ñoo ngi leen soññ di soññ nag mboolem daayira yi nekk Dakar te yaakaar Serigne Kosso Mbacké Astou Lo parce que daayira dafa am solo benn daayira donc ba ndi woon tey maanaam euh, cinquante personnes maanaam day feesal saal bi léegi daayira yi nekk Thiès Ndar Soxna Mari Diop Ndar ñoo ngi lay lancé appel yow mi nekkal sëriñ Koso Astulo Ndar nekkal fa sëñ Mudu Kara Koso ba sëñ Mudu Kara Koso ne yaay sama bayfaal kon bayfaal googu nag bëgg nan nga war na ko fii ci Dakaaru ñu commencé fi dem Sarsara soxna Bëre Njoom Ndar ñoo ngi lay laas appel it waaw jàngkat yi Ablaye Ñang yooyu doomam yu sell yu tedd yooyu nga ànd ak ñoom ñëw Touba ak Daawar ak Sarsara na nga fexe ba ànd ak ñoom ñëw dakaar teewa bis bi ñu waajale ko Sarsara ci kàttanu yàlla ak yonante bi ak Serigne Touba képp koo xam ne yaa ngi sant yàlla ak yonante bi ak Serigne Touba ñoo ngi la woo ci bis bi ak jàngkat yi ak commune ak képp koo xam ne xam nga dara ci Maam Thierno xam dara ci Serigne Touba xam dara ci kër Serigne Modou Abal xam dara ci Serigne Kossa Asro évité la muy ak kër goo mën a bokk ak terexa boo mën a boo a bokk waaw di évité dongee laxasaay yi ne ci daara yëpp foo waaye ne ci ak ci réseau yi na nga fexee ñëw teew ci bis bi te xam ne ki ñuy liggéeyal kenn la muy Serigne Kossa xarit yi pëllëri yi bayuma kenn asalem ga may liggéey dafa yëngoot bayuma kenn góor jigéen mag ak ndaw yéen waa maata asalem 5 invité naa leen ci sam bés bii di bés sëñ Koso Astou Lo ñu ko waajal Sarsara wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu waaw jërëjëf sëñ Koso kàddu yi am na solo lool ñu ngi santaat bu baax di santaat bu baax ni ko waxee rek njabootu sëriñ Koso gi yëpp ndax ñun amuñu lu dul ñoom euh, euh, ñun ñun suñu lépp ñoom la suñu yéene ak suñu pas-pas ndax suñu ngërëm ci Sëriñ Tuubaa ci ñoom lañ koy sàkkoo mënuñu leen de mënuñoo mënuñoo génn fenn ci ñoom kon ñoom dañuy suñu lépp kon ñu ngi leen di gën di leen lancer invitation bi dina wax ne carte invitation yi tamit ñoo ngi ci incha allah rabbi ci fan yu néew dina dina dina dina jàppandi ñu mën koo séddale tamit ci mbokk taal bi waaye ni mu ko sëñ ko sa mu jëm ci wàllu daayira yi bépp daayira boo xam ne yaa ngi yaa ngi yaa ngi au Sénégal nga nekk ci région bu mu mën di doon muy Thiès Ndar Dakar Louga fu ci man di doon ci ci région Kër Masuka fu mu ci man di doon ci ci ci ci ci au niveau du Sénégal ni ngi lancé ñëpp bu kenn des na ñëpp ñëw ñu bokkandoo liggéeyandoo liggéey bi waajale ko ci Sarsara ndax fii nii bu ñu fi ñëwee ni ma ko waxee sànq ci par rapport ak conférence boobu ñu ñu jaglee préparatif màggalu Sarsara bu ñu ñëwee xool ba xam nan la ñuy organiser euh, daara yi nga xam ne ñooy ñooy teew biir Sarsara nan la ñuy organiser mbool ma fa nekk ba yitte ji nga xam ne daana daan daan daan daan daan daan daan daana tax euh, Sarsara di gën di kawe ci màggal yi yitte jooju noonu daa daal di teewaat ñu man koo waajalee Sarsara kon daal ñu ngi lancé waat appel na ñëpp teew bu kenn des bu kenn des ndax am na am na programme boo xam ne teew rek mooy tax nga mën koo xam incha allahu rabbi waaw kon ñi ngi santaat bu baax a baax di sant sëñ Moustapha Seck moom mi nga xam ne moo nekk Touba TV nekk taalibam sëriñ bi nekk euh, ngi nekkoon ci benn émission waaye dafa gis ngeen dafa mujj dagg émission bi mu doon dafa émission bi mu kii rek xam nga da koo dagg ñëw émission na ma ne mi ngi ñëw kon donc kooku noonu dañ koy sant bu baax a baax te kër sëñ bi ni ma ko waxee sànq am na façon bu nekk am na am na am na am na am na catégorie gu nekk kon li des mooy nan la ni booloo ba fexe exploiter catégorie googu noonu ku ci nekk mën cee gis sa bopp ñu mën a liggéey sëriñ bi loo xam ne xel euh, dina dina dina kawe njot ñu ngi santaat ñëpp di tuubalaat ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah